asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 27 août ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la xëy tey doore ko mel ni ki yëglikaay bi nag moom tey fa mu xëy ñëw diggante ñaari mbër yi nga xam ne ni ñoo war a war a bëre combat royal bi muy diggante Ama Baldé bu Pikine sëll bu ndaw ak mu loolu roi des ba ca Parcelles Assainies mu mel ni nag Luc Nicolaï nga toog ca seen diggante daal di téye gémmiñ nga yëglikaay bi nag dafa xëy di deful waxul moo tax nag ña yor mbër moom ku ci nekk laaj nañ la ci mbir moomu noo ko gisee bu dee kii Rizil la moom nee na boobu ba tey daal amul benn nouvelle boo xam ne nii jóge na ci Luc Nicolaï ñëw si ci ñoom moom Zil Balde loolu la wax biram ñu ngi tamit moo yore Modou Lo moom tamit daal nee na moom ba tey mu ngi gëm daal ne ko combat boobu moom lu ci mën a am bés dina ñëw ñu bëre ko biram ñu ngi moom gis-gis boobu la xëy tey am ko leneen loo xam ne nii yëglikaay bi ñëwoon na ci démb muy diggante Tapha Gueye ak Gris Bordeaux tey nag xëyaat na ci wàllaam daal seen combat bi wala boo combat Gris ba nga xam ne jàpp nañ na Tapha Gueye kenn waxu ko ko yëgu ko bu fekkente nag am na ñu ci laaj Max Mbargane directeur technique ko Lansar moom laaj nañ ko ci loolu conseil yi mu war a joxe Gris Gris Bordeaux Max nag moom la mu xamal Gris daal ne na ko li am ba des daal moom ci boppam am na droit bëre ji moom kese bu ko neexee waaye jàpp na daal la gën a jaadu moom ñu toog waxtaan ndax nag jàpp na ne moom mbir mi pootum biir néeg la kon nañ ko def ci ak famille bi maanaam waxtaan ngir mu rafet ndax Gris ak Tapha Gueye yàgg nañu waaye daal Max moom conseil booba daal la moom la war a jox Gris Bordeaux maanaam daal ñu waxtaan xool nu ñuy ànde mën a nekk benn loolu mooy li mu wax Abdou Gueye di magi Tafa gi tamit di ko su nekk ci Gris moom tamit daal jàpp na ne kii di Gris ko neexee na droit moom kese jël kombaam dem bëri ji ko ndax nag jàpp na ne koo xam ne def nga ci lam lu mat ñaar fukki moom nee na fi mu nekk nii bëri waratulaa jaaxal ak nuñ koy préparé waaye nag jàpp na ne moom li gën daal mooy moog Tafa Gueye ñu ànd wala boog mu ànd ak ñi mu war a àndal Abdou Gueye la gis dina Gris Bordeaux daal am na droit moom jóg demal boppam ci Tafa ndax jàpp na ne ñoom ñaar la leen boole dafa bëri lool loolu Abdou Guèye moo ko wax di mag yi ka nga xam ne moo di Tafa Gueye ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne moo di suñu làmb keneen koo xam ne ni moom itam xëy na tey daal jëli xeeram wala boog di wax la mu ne moo rey bëri bi bëri olympique bi lit olympique bi kaka wax nag du kenn ku dul Wenceslas Ndione di international moom ka muy dal ci kawam daal nee na Aline ak waa bi daal bu làmbi olympique ji yàqoo du kenn ku ñoom ñoom ñii daal ñoo ko yàq loolu mooy li nga xam ne ni moom la xëy tey di ko wax keneen koo xam ne ni moom itam xëy na di wax muy Bombardier mi nga xam ne dégg na roi des arènes ñaari yoon moom nag la mu jàpp daal ne na Tyson daal xalaat na ne pourquoi mënta jiite làmb moom daal jàpp na ne war na mën a sax jiite lii nga xam ne moo di CNG bi loolu mooy waxi ki nga xam ne nii moo di Bombardier tey ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb ki nga xam ne nii nag moo di Boy Kayre ak ña nga xam ne ni daal ñoo ko agressé woon ñëw këram jël ay xaram dóor fa ay bali fetel yëglikaay bi xam nañu ne daal li am ba des moom ñeent ca sàcc soosa jàppees na leen yoon teg na ci ñoom loxo yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu kii moom yëkkati jéggal ko muy ki nga xam ne nii moom moo di Masor Sow moom nag dinañ moo jiitoon fan si club bu ba ca Kaolack at yu baree baree bëri école de lutte Ajuma Diouf tamit kilifa la fa woon moom daal génn na àddina ci àjjuma ji nga wala boog ci mardi bi nga xam ne moom la génn ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay biir sunu làmb mu ngi xëy nag tey ñëwal ñu ci bilaawu école de lutte Bosco Sow ba ca jàmm gën wala boog jàmm gën Sicap Mbao la ñu yëglikaay bi xëy tey ñëw indi ñu seen ay résultat mel ni ki ñoom sept victoire la am ak lu toll ci trois défaites mu mel ni ki nag seen leader ba nga xam ne moom moo di Siré Seras moom kenn gisatu ko ci làmb ji xam ne moo di jila moo wala boog moo di jili ñoom ba tey bu bëggee dégg dëgg daal ñu nga ca salle d'attente ba toog di xaar Liss Ndiago moom daa mel ni fi mu nekk nii jàmm gën bu amee beneen phénomène bu bees daa mel ni moom la écrit booba daal phénomène bu bees ba ñu am moom moo di Liss Ndiago am na fa ñoo xam ne tamit ñu ngay wane seen bopp muy doomu jàmm gën ak mbay xaada ñoom confirmé nañ bu baax a baax am na ñoo xam ne moom yaakaar gu tas nañ ci écrit ba muy Ahmed Gambien ki nga xam ne moo di Lagros numéro 2 mel ni ki ñooñu moom nañu dikke daal baax do daxu ko mu def ko continuer dem fi nga xam ne moo di ci record record nag moom ka xëy tey wala mu xëyati ñëw tey mooy diggante Tafa Gueye Guèye Bordeaux ak Mbaye Guèye ga mu génnoon démb di wax ko ci dàq bëre mu mel ni kii nag mbir ma leer na Tafa Gueye moom wax na nee li am ba des daal bu fekkente ne Fass dañuy wax tigre dëgg dëgg dëgg du kenn ku dul Mbaye Guèye moom mooy vrai tigre de Fass ndax moo wone jëf ju mel noonu waaye nee na bëre moom nee bu ñu ci demee Gris Bordeaux du ci seen morom maanaam moo leen ci jiitu bu baax a baax leneen loo xam ne yëglikaay bi record tey xëy na gëstu ko muy mbër yeeg di wama liggéey ak yu bari yoo xam ne day am ci làmb ji mu mel ni na yoo xam ne fàttali xam ne nii moom moo di jàppal ay akisa daal yàgg naa am ci li nga xam ne nii moo di làmb ji moo xam Balla Gaston Mbengue Eumeu Sène yooyu yëpp yëglikaay bi ñëw na ci Lac de Guiers numéro 2 ku ne yéen a ngi fàttaliku diggante ma ki nga xam ne moo di Modou Lo mel ni ki tamit Lamine Samba lu mel noonu daloon na leen ca mbir moom ma Yékini ak Gaston Mbengue te digganteem ak Tapha Guèye yooyu yëpp yëglikaay bi ñëw na ci mu mel ni ki tamit Aziz Ndiaye loolu daloon na ko ci diggante Balla Gaye ak Tapha Tine mu mel ni ki tamit waa ka Tapha Tine moom la ñu accusé woon papi général tamit ñëw ca la mu waxoon saakajoor ci wàllum am liggéey mu mel ni ki daal yu mel ni ki noonu moom bëri ci làmb ji waaye dañ fay jóge wala boog ñu des fa wax francs ak juróom-ñaari nag lii daal la Obali jot a def leen ren loolu mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record. mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi nu ànd ak nag si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di la delloo ziar di nuyu internautes yi ñu suivre ci Leewtoo TV yëpp di leen delloo ziar ñoom tamit di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax ni ñëw nag si jàngatu aan bi ñu commencé ko ak sunu laam sunu laam moom lu mu gis daal nee na depuis Luc Nicolaï génnee euh, fi nga xam ne mooy kaso nu may ko liberté. Mm-hmm. moom daal ba léegi waxul si combat bi nga xam ne moom moom la tëgg mu diggante Modou Lo ak Ama Balde wulaaj nañ nag ki nga xam ne mooy magu Ama Balde muy Jules Balde moom daal nee na amul benn nouvelle Luc Nicolaï depuis bi mu génnee ba léegi biram ñi gi moom nee daal am nañu yaakaar ne combat bi dina am à 100 pour cent. waaw loolu day moom depuis mu génne ba tey presque un mois la muy loo xam ne dañ ciy kontaan rek di ñaan yàlla loolu wàcc ko sans définitivement ah bu ñu toogee depuis ba ba dégguñu ko xëy na nag nit ki bu defee ay weer si kaso yaakaar naa ne ak ku toll ni ko Nicolaï su génnee xëy na dana am lu bëri lu mu soxlawaat ci boppam ak yu mel ne kii noonu xam nga xëy na moo tax ci suma mag bu rafet boobu ba tey nit ñi dégguñu ko mais lig moom ni ñu ko xame ak bëgg relevé defeem ni mu ko ni mu ni mu ko itteelee yaakaar naa ne combat bi moom ak li mu fi mu jaar ba taxawal ko xalaat naa ne bis bu euh, pare ba nekk ci li mu war a nekk dëgg am naa yàqi nit dina ñëw ci combat ko man loolu xalaat naa ko comme ko biram ñi ngi jàppe daal jàppe naa ko moo tax muy biram ñi ngi wala muy Jules Baldé nekk rek boobu ba tey ko dégg que xëy na rek comme li ñuy wax la génn na ñëw na nekk na ci boppam wala mu nekk ci yenn affaire yoo xam ne ne xëy na après naam sax mu ne ci combat bi ah. Mm. waaw nag suñ jógee nag Mbour la dellu fi nga xam ni moom mooy Fass Fass nag moom comme que démb suñu laam ne woon na Gris Bordeaux ki nga xam ni mooy Moustapha Gueye te nag journal bi nag dafa xëy nag jox kàddu ki nga xam ni ñeenti technicien ku si mel ni Max Magar moom daal mi ngi conseillé ki nga xam ni moom mooy euh, Gris Bordeaux wax ko nan la war a def pour mën a bëre ak ki nga xam ni mooy Balla Gaye boole si aussi ak euh, Moustapha Gueye ki mu gis euh, Abdou Gueye nag moom nekk ak si Moustapha Gueye li ma gis nee na Gris Bordeaux am na liberté daal dem demal demal boppam daal. waaw parce que li am solo daal mooy li ñu si waxoon dem la ñu si waxaat rek dafa naan loolu ko père Maxime Bergane wax mooy li war a nekk maanaam ànd. jéem a xool nu ñuy régler seen i mbir seen biir defe naa loolu mooy li jaadu pour man parce que ànd bu yàgg la te nee nañ ànd bu yàgg dëgg la ànd nag dina dem ba benn moment euh, ah mu am ay quelques jafe-jafe yaa dégg bu ci amee nag ñun déggaguñ ko xëy na nag bu amee ñoom ñaar la concerné wala ñeneen jege mais li ci am solo daal mooy xool nu ñuy waxtaane pour mën a ànd defe naa mooy li gën Abdou Guèye li mu wax Gris Bordeaux ci expérience am ak at yu mu def si làmb man na tey gérer làmb yaa ngi dégg waaye nag xëy na euh, ànd dafa gën a wóor lu nekk rek waaye ànd bu mënta doon tamit ndey ko mën na ngeen ànd te yàlla tax mhm. parce que ànd moom bu yàlla taxulee tamit maanaam leneen lu ko mën a lal te yàlla taxul itam ci yàqu rek la lay mujj quoi loolu nag ñaanuñu ko ci benn ànd leen tamit dina yàq ànd ndey ku ma bu fekkee dama bëgg a ànd ak yow yaa ngi dégg teg la loo man nga bañ ko loolu dana yàq ànd bu fekkente ne dama bëgg a ànd ak yow teg la loo xam ne mënuloo ko loolu tamit dina yàq ànd kon ànd li koy defar mooy tegelees man ak itam maa fexe ba ba lu lu la sant nga mën ko nga def ko waaye itam bañ di tege loo xam ne leer na ki nga koy teg mënu ko. Mhm. waaw Babacar nag suñu demee suñu jógee nag Fass euh, nañuy dem fi delluwaat fi nga xam ne mooy Mbour foofu nag Bombardier mi ngi wax ni moom daal lu ma gis te nekkoon ñaari yoon roi des arènes moom lu ma gis moo nee na Tyson mën a nekk. prochain président CNG. ah waaw loolu day xalaatam la te itam defe naa moom mi ko wax ci biir làmb ji la bokk marqué na ci empreinte am ndax ñaari yoon roi des arènes bomber ji rek la ko yàlla may gu làmb kon ne mooy Mohamed Ndao Tyson mu jàpp ne a jiite làmb defe naa ne fa mu la mu wax am na fa mu ko teg te Tyson tamit ñun mën nañu wax si moom defe naa comme lu Sénégal yëpp mën a wax si moom ci nit bi nga xam ne nit ku responsable la ci ay kàddoom ci ay décision ak ci ay doxalinam tamit nekk na koo xam ne nii ci diiran carrière am mu jeexe man mësuma dégg ñu ne Tyson génn ci journaux xuloo na ak nit wala jote na ak nit loolu moom mën nañ ko ko waxal. waxam sax bëriwul nag waaw. par tey par rapport ku nga xam ne carrière làmb yombul. Mm. mais nag njiit la nag moom Bombardier moom moo wax la mu wax itam moo xam la tax mu wax ko kon nag li ci des moom dañ koy bàyyi ak waa làmb jeeg nit ñi rek. waaw li ñëw nag si bilan wu Diamaguène Sicap Mbao ñoom nee nañu am nañ sept victoire ak ñetti défaite ñoom daal yaakaar nañu daal. am nañu bilan bu baax. waaw waaw tane na de combat yi moo bëriwul waaye wax dëgg yàlla tane na parce que victoire 3 défaite moom am na lu mu gën yaa ngi dégg kon defe naa daal te écrit bu ndaw la jàmm nga si gàmbaaw yàggul mais terewul ñu ngi góorgóorlu xam nga euh, kon daal leen di wax moo gën leen a encouragé xamal leen ne mbir yi moom ah xëcc bu daggul la rek su yàggee rek day ñëw kaa bañ bàyyi rek liggéey. Mhm. waaw suñu nag si bëri de bu nañu dem nag si olympique bi foofu nag ni fay dalal suñu lamb mi ngi fay ñoom noo tax lutte olympique bi suux baax a baax baax ah loolu arbitre boobu wax day jonn moom da doon wax bu dee noonu la demee moom war te defe naa sport la bi nga xam ne nii lu international la quoi olympique kon yaakaar naa daal bu fekkee noonu mu ko waxee noonu la demee dañ ko rey nañu fexe dekkalaat ko pour mu mën a doxaat pour ñi ci war di nekk nekk ci quoi ah, suñu jigéen ak suñu laam na nga am fi nga xam ne moom mooy Mbaye Guèye Moustapha Guèye ak Gris Bordeaux tey nag dafa ñëw na jox kàddu ki nga xam ne moom mooy deuxième tigre de face muy euh, Tafa Guèye Tafa Guèye nee na su dee wàll bëre ak technique moom mun a jàpp ne moom moo moom mooy moo gën. moo jiitu quoi moo jiitu Mbaye Guèye mais nag si wàllu tigre maanaam xëy na fit bi peut-être. vrai tigre waaw vrai daal moom mooy mag ji muy Mbaye Guèye. waaw loolu la wax dana vrai tigre bi mbay Guèye la.

ne làmb ne mystique foofu nag euh, abu nag ñoo na si def benn papier nee na quand suspicion méfiance accusation maanaam daal affaire yi njaaw njott ak affaire yu lañ lañ ma jàpp si wàllum sëriñ daal yàq làmb ji nee nañu Bathie Seras bi muy accusé waa Pikine gis nañu aussi Yékini ak Gaston mais jàppante bi ñu fa jàppante woon Aziz Ndiaye aussi ak Tafa Tapha euh, tamit mm, waaw mu mel ni yooyu yàgg nay am si làmb ah. diwoo ma jaay diwoo yàq sama combat diwoo ma def lii xam nga yooyu yëpp ci làmb ji danga ko ciy gis parce que li ko waral mooy làmb bu ma bindoo noonu parce que li tax mooy mystique bi da cee am ku ne gis na ne làmb mystique da cee am mystique boobu nag xëy moo tax des fois ñu naan diwoo ma jaay diwoo farak diw diwoo ma xeex diwoo ma nangam mais loolu euh, la may nga jël ko parce que làmb moom li ma la la rek mën nga mbër muy ñëw ci làmb di nga ñaan mm. waaye sa suur bu làmb jotase am ñu daan kon nag loolu moom Ndeye Coumba mu ngi noonu quoi nañu gën a rafetal njort yi rek ku ci nekk rek li nga yëg ci sa bopp nga di ko yëg ci sa morom ci lu baax ak lu rafet quoi bu ko defee pour man yooyu yëpp mën na ñàkk mais ne bu ko wax parce que fois nga mer wax wala nga loo xam ne bis boo giifee Ndeye Coumba da koy rëccu mhm. Babacar nag ñu jeexale ak euh, bëre simple bi foofu nag ni nga fa dalal ki nga xam ne mooy Ibou Ndiaye Obali ñoom nee na am na daal 4 trophées ak 4 millions 129 mille tey moom juuma ak 7 ba moom daal na lii may wane nag moom comme que waa Diofior la nee na wax dëgg yàlla lu la waaye wax moom mbër la parce que mbër la ci bëreem mbër la ci na solo 4 millions 129 mille francs ak juróom-ñaar yi nag vraiment daal loolu itam lu dañ ko ciy félicité ah waa am ci la gis ak ku ni Doudou Sané ñuy ay xale yoo xam ne ñu ngi foofu di wane seen bopp bu baax a baax mais ëbbali daal wax dëgg yàlla kon ñu ngi ko naan jaaraama ci loolu mu jot a gañ <laughs> si kàddu yooyu lañ tàggoo di leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu Asta ni leen DG Brahma Chéri sama doom Mame Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ne moom mooy Grand Fallou Asta di ne depuis aussi yaa ngi si biir nuyu Khoudia Seck Chéri As Seck mi ngi si biir aussi maa ngi koy nuyu di ko wax aussi na. na xam ne rek àdduna mooy loolu na na continuer na gën a muñ rek na xam ni euh, yaayam bi nga xam ni moo ko dëddu mu continuer di ko ñaanal ki nga xam ni aussi Abdou Guèye depuis États-Unis Baye Fall Diambagan papa yi cité aussi maa ngi koy nuyu di ko ziar Babacar. waaw man tey moom damay ñaanal sama rak mm, Pape Mamadou Diom. 40e jour tey la 40e suuram ñeent fukki fanam ci suuf. Mm. yàlla jël ko ci ndogalam ak na ma ko soobee. Mm, Petersen fu mu doon liggéey mécanique xam nga di sama rak man naa ne ñoo bokk ndey ak baay sama yaay dafa teel a àddina yaayam yar ma mu nekkoon rak ju takk ci man nekkoon tamit ku déggaloon ay waajuram nangoon a liggéey trop parce que ci biir liggéeyam la wàcce liggéey wuy ji boromam ma koy ñaanal yàlla fa mu tëdd ca Touba ca baax ya yàlla na ko yàlla jéggal jékk jéggal bépp mbindaafoon bu tëdd ci suuf barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais maa ngi koy jaalewaat encore une fois rek suma wayjur bu góor ak bu jigéen ak tamit suma ay frère ak suma ay sœur di ko jaale waa ak yaay yëpp mais di ko jaale tamit waa Petersen fa mu doon liggéey képp ku ne Petersen rek rawatina ouvrier yi nekk foofu mécanicien yaak tôlerie yaak lameur yaak ñoom ña fa nekk rawatina ay patron ku mel ni Ibou Thiaw ak Aliou Ndiaye yi ku mel ni Ousseynou Diagne yaa ngi dégg nekk foofu Serigne Mbaye ñoom Abi ñoo ñëpp ak Assane Ndour ay xaritam la ñu woon ak jib seen mu nekkoon rakk joo xam ne daal ndey kum wax dëgg yàlla ah, yeggoon na ci man foo xam ne ni ci respect ak déggal ay wajuram barke alxuraanu karim jafe na nga am rakk ju mel noonu kon Pape Mamadou maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla jégal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te am loolu feeñ na di wax mention spéciale waa ak yaay ak dëkk yi ko wër yëpp ndondool mbomboy parce que gis nañ taxaw bi muy loo xam ne daal tey foofu laa koy yemale di ñaan daal yàlla mi am jéggal te mën a jéggal yàlla na ko jéggal ci weeru tamxarit wi ñu nekk mm. jéggal bépp mbindaafoon wala bépp jullit bu tëdd ci suuf barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam